ŋàññi lool euh, di gestion Ablaye Dieye bu AIBD dem nañ ba di ko méngaleeg sax gestion poste maanaam di artu ci ay conséquences yu ñëwoon loolu yow ndax gis liir nga information boobu ak lan mooy sa réaction. bon c'est Edouard Latouf euh, responsable après commune Thiès Ouest euh, cadre à la LONASE Mbaye xam nga man dama dama dama xaw a jaaxle ci Thiès. ak le comportement de certains acteurs politiques te l'information bi nga def allusion c'est des éléments de cest dire que ay ñu nekk biir affaire la c'est des acteurs politiques de Thiès du ma ne des acteurs sax c'est un acteur politique de Thiès euh, j'ai pas besoin de citation il pourra se reconnaître ci lool mm. c'est la même personne bi ñu nommee bi ñu nommee Ablaye moom moo moom moo ne est-ce le même journaliste qui a utilisé la même plume moom moo ne woon euh, c'est le même organe de presse le même le même le même journal ñu ne woon Ablaye Dièye n'était pas n'était pas expert évaluateur wax lu nekk donc euh, pour un homme politique je crois que même ils sont en de rendre un service à Ablaye Dièye il est vrai que euh, c'est un acteur politique au à la légitimité incontestable au leadership peut-être à la popularité qui dérange Et ça, Ablaye dérange. Il est sorti d'une élection locale où il a confirmé un leadership incontestable. Et sur la base de ça, le président de la République lui a tendu la main. Bien que dafa nekkoon dans le cadre de la majorité Benno Bokk Yaakaar. Ablaye yàgg na ci Thiès yàgg na liggéey pour le président de la République yàgg na celui qui avait organisé le meeting le grand rassemblement de 2019 il était constant sur le terrain politique. avant, avant d'être directeur général de l'AIDB, mais il avait une entreprise privée. Il a fait ses preuves dans le privé avant d'être dans le public. Donc c'est quelqu'un qui est le président de la République. C'est-à-dire que war avons le président de la République, moom rek moo yor prérogative exclusive constitutionnelle de nommer à tous les emplois civils et militaires celui qui a nommé Ablaye Dièye comme directeur général de la sans demander l'avis de personne soxla soxlawul soxlawul demande avec kenn ki laa nommé à ce poste là il sait que c'est un jeune qui est intègre c'est un jeune qui est travailleur c'est un jeune boo xam ni les Thiessois nañ ko porté dans le cœur c'est un jeune boo xam nii ci président la ci mbirum président la musa nekk bi mu jëlee bi mu jëlee décision nekk dans l'espace politique te boobu ba léegi nit mënu ko reprocher quoi que soit lu dul présent sur le terrain politique et travailler à trouver des réponses pertinentes aux préoccupations des Thiessois Abdoulaye Dièye bu ñu fàtte nii bu ñu ko falee dafa am loo xam ni presque kenn amu ko Abdoulaye Dièye dañ ko fal mais tous les Thiessois. Thiès gépp loolu moom. unanimité totale. loolu moom c'est la donc te tamit mu am koo xam muy muy koo xam ni waxuma au-delà du fait que nit ku baax la mais il a l'ambition de faire bouger les lignes il a l'ambition de faire changer Thiès il a cette volonté là bi mu ci bi mu nekkee ci avant ñu koy nommé les gens tout fait pour nëbbu ko pour effacer ko il a été combatif il m'a dit man ne ma grand bi ñu ko nommé quatre jours après il m'a appelé ne ma grand grand frère man de tout le monde m'appelle pour mu féliciter mais yow dama lay woo pour te féliciter parce que xam naa ci sa taxawaay vous avez élevé la voix ma ne ko sa yàlla bindoon na ko sa jë te sa xol la yàlla fay deuxièmement lenn rek laa lay demandé xam naa ci nga nekk dama la koy fàttali na nga gën a jàppale jeune Thiessois yi mu ne Edouard je vais le faire je ferai en sorte que Thiès soit ici moo ma bëgg Thiès change de visage je veux que mun ne ma les mêmes ambitions yi ma amoon bi may wut bi may solliciter le suffrage des Thiessois offre boobu ba léegi c'est en vigueur je vais me battre pour que ambition yi ma am pour cette ville là donc barki démb rek maa ngi dégg muy wax loolu ci course bi jëmale ko ci mouvement nawetaan. non ma non ci partout ambition yi rek mun a c'est-à-dire que Ablaye mënu wax ne depuis cinq ci espace politique bi am na lu lu lu Ceesu war a dugal loxoom te ci loxoom mu doon sur le plan de la santé sur le plan de l'éducation sur le plan sportif mais ci domaine yëpp on a senti la présidence d'Ablaye Dièye muy feerte c'est-à-dire que man dama ni dëkk bu nekk ñaanoon nañu yàlla am ab Ablaye Dièye de Thiès mu ne mu ñuy wax ak mu ne ko xam nga ñun notre devoir en tant que ñun mu ne ko sa grand frère la en képp kuy Thiès waat tu dois faire en sorte que que Abdoulaye ne se décourage di toog parce que bu soo découragé di toog vous allez laisser un vide boo xam ne que personne te te wax dëgg yàlla euh, yenn message yi cest à que yenn temps. la bu politique mooy def lii. la pour la. non non non xam nga lan lan moo sonal nit. Sénégalais de façon général yenn cadres yi ils pourquoi pas moi y a des gens yoo xam bu leen président tàggu woon du ñu nommé Ablaye Dièye du ko nommé Ablaye des gens yooyu pourquoi ñu ne Ablaye Dièye pas moi ya a des gens que Ablaye Dièye empêche de tourner en rond avant-hier ils ont fait passer des rumeurs pour dire que Ablaye Dièye Idrissa Seck la jàppale. ah bon oui. ils ont fait partie des rumeurs comme quoi Abdoulaye Dièye Idriss Seck da koy rencontre il lui a assuré de son soutien. non mais rumeur bu waaw mais wax nañ loolu pour tenir son image tout le monde sait que Abdoulaye a fait une proposition c'est-à-dire que celui qui est à la tête de la pétition bi mu def motion de censure mu def pas motion de censure excusez-moi le terme motion de soutien. est-ce moo leen motion de soutien bi mu def pour solliciter un million de signature mais peut-être que loolu la bëgg a def pour yàq dara mais dama ni nit ñi gëm yàlla gis nga gis nga le destin de l'homme ne d'autre qu'entre les mais du du du Seigneur yàlla moo yor le le le destin de l'individu yàlla moo ko yor kenn yoru ko Ablaye Yeye bu ko yàlla fayoo xol mu nekk mënu ko am c'est une fierté thiessoise c'est quelqu'un qui est en train de confirmer un Je n'ai pas dit, il a cessé. cest avant, de, de confirmer une légitimité euh, pop, euh, euh décrétale, mais il a eu à confirmer une légitimité populaire. C'est quelqu'un, au niveau national, il est en train, en tout cas dans la redistribution des cartes au niveau national, on ne peut pas le faire sans blaguer. C'est quelqu'un qui aime sa ville. Le plus déterminant, c'est que est-ce qu'il aime sa ville. Le plus déterminant, est-ce qu'il est crédible Il est crédible. Le, le plus déterminant, est-ce qu'il a déjà fait ses preuves avant d'être nommé Bien sûr qu'il des preuves. dama ne entreprise bi mu nekk jël na ci ay Thiès waa ñu liggéey jël nii. ñu naan woy cite le cas la poste maa ngi nuyu foofu soit di en passant sama xarit muy le le directeur général bi fa nekkoon muy Siré Dia di ku baax. nit ku baax il a il a pris des Thiès waa ñoo xam ni changé seen condition donc bu ñu naan woy le syndrome de. de de la poste la AIBD déjà lu yu Abdoulaye yi commencé def nii rek ba le président di ko apprécier parce que ki gën a mën a apprécier lu nit di liggéey muy président la République le président la félicité aérodrome yi yu mu commencé def di defar par ses pro yenn yi parfois parfois par ses propres moyens donc on doit l'encourager on doit être fier de voir Thiès doit avoir être fier de voir un de ses illustres fils être à la tête de l'AIBD mais waruñu ko di nekk di ko di ko di ko di tirer di tirer sur lui et de façon maladroite parce que quand quelqu'un quelqu'un quelqu'un qui doit nit booy attaque boo koy attaqué attaque ko face à face c'est-à-dire que attaque ko face à face c'est pas des éléments de l'opposition qui sont derrière ces articles de presse c'est des gens qui sont de la paire c'est des gens qui sont dans la mouvance présidentielle ñooy def ci ñooy nekk dans les articles de presse pour yàq nit dama ne Abdoulaye Dièye ko mooy bëgg a yàq tu auras les Thiessois en face de toi. Je ne dis pas seulement la paix, en face de toi. Et lui, il m'a dit, Edouard, l'un m'a intéressé, que le président réussisse. Que le président, je suis à côté du président de la République. En le soutenant, je n'ai posé aucune condition. Bon, moi, aux élections législatives, je ne demandais, j'étais candidat à aucun poste. Je me président, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis je suis là, je c'est ce qui l'attaque nag on manque de comprendre les enjeux je crois que enjeux yi ñu jëm ku ci ku ci bëgg a jàppale président de la République da ne Abdoulaye Dièye da ngay nekk ci page da ngay dimbali militant yi da ngay taxaw tu prends la défense du président la tu le défends c'est ce qu'il est en de faire donc je lui réaffirme mon total soutien mon soutien sans réserve en tout cas tous qui se tenteront ils l'ont tenté une première fois en parlant de de de parce qu'il n'est pas évaluateur ils ont raconté n'importe quoi mais l'homme garde toute sa sérénité. Parce que gérer l'AEDB, déjà, il y a des défis, beaucoup de défis qui se produisent à l'horizon. Dans le contexte nous sommes, il travaille à sécuriser l'espace de la majorité, il est loyal au président de la République. Et je crois que c'est ça le plus, le plus, déterminant. Et le, la seule personne qui a qualité à nommer le, le directeur, directeur, général de l'AEDB, Ablaye, c'est le président de la République, celui qui l'a nommé. La seule personne qui a des grilles de lecture, d'analyse, d'appréciation pour pouvoir le gérer, pour, pour pouvoir savoir la santé financière de l'entreprise, c'est le président de la République. Et le président de la République est entièrement, totalement satisfait du directeur général Ablaye. D'être serein, de garder toute sa sérénité. Euh, le président le, le président Senghor da doon wax Tanor Tanor dafa ñëwoon ci sa boobu la conseil diplomatique. du président Senghor mu ñëw ne ko ne ko président président je tout les gens passent tout le temps Tanor moo ko waxoon Senghor mu ne ko les tout le temps à m'attaquer mu ne ko Tanor être contesté c'est être constaté mu yokk ci leneen ne ko pour dure il faut endurer Donc ceux qui contestent au digitalisme, je lui lance un appel, je, je l'invite, je l'ai toujours invité, le, monsieur le directeur général, la Diop, les Thiessois, pas le directeur général, excuse-moi le terme, c'est mon directeur général là, on t'invite, encore une en passant, monsieur le directeur général Ablaye continue dans cette dynamique-là, que, que personne ne te fasse changer de trajectoire. Les Thiessois portent dans leur cœur. Les défis qui interviennent son ville sont multiples et Les défis qui de l'AIDB sont multi, multiformes. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train de travailler. Il y a des gens qui, les, les ceux qui, qui sont capables d'aucune production intellectuelle, qui sont capables de rien, qui ont montré les limites objectives, qui sont toujours éloignés des préoccupations des populations, des militants de la paix et des Tchessois. Laisse-leur à se bercer En tout cas, vous avez la confiance des Tchessois. personne ne peut tenir image.